mbokk internet yu Dakar Net ginnaaw bu ñu leen nuyoo dal leen jàmm euh, ci euh, les minutes euh, de l'info dañ koy ubbeeg luy doy waar di communiqué bi nga xamante ni léegi la daal di tàbbi si suñuy loxo di communiqué bi nga xamante ni fédération sénégalaise de football moom moo ko daal di communiqué communiqué bi nag li muy wax mooy dafa am ay nit yoo xamante ni ay samba boy yi confectionné ay ticket ticket yi nga xamante ni fédération mi ngi koy jaay ngir waajal match bi nga xamante ni Sénégal da defar même ticket wala sax yi nga xamante ni dafa xaw a nduróog moom di ko jaay sénégalais yi te sénégalais yi ñu ngi koy jënd képp ki nga xamante ni yaa ngi dem di jënd ticket yu bon yooyu te mu nduróog ticket original yi defal attention ndax bés ba boo fu ñëwee di nga am jafe-jafe ngir dugg daanaka sax doo mën a dugg donc képp ki nga xamante ni fédération sénégalaise jaayu la ticket bul ko jënd xibaar a baa ngi noonu ba léegi ci les minutes de l'info dañ koy waxtaanee ki nga xamante ni mooy Kalidou Koulibaly xam ngeen ni Sénégal tey à partir de 19h30 damay football ak Égypte fële ca Caire di wutali li nga xamante ni moom mooy ak éliminatoire coupe du monde aller retour yi Kalidou Koulibaly nee na revanche bi ñu am ñun suñu revanche bopp la revanche bi nekkul ñun ak Égypte en quelque sorte war nañ ko war a jàppee ñun ñooy am revanche ak suñu bopp li tax mu wax ko ndax 2019 Algérie dafa gañe woon ki nga xamante ni ah, moom mooy Sénégal pattal ko ca stade boobu nga xamante ni tey Sénégal dafay football moom Kalidou Koulibaly sax jotul woon benn yoon li nga xamante ni mooy football ndax dafa amoon ñaari carton maanaam cumul de carton la amoon eh, fële nga xamante ni moom mooy deux 2019 ca CAN ba bu ñu fa jugee dañuy daaneleeg mbir mu doy waar Amadou Diallo mi nga xamante ni mi ngi ah, yoof la daal di dëkk wala sax fa lañ ko gis ay élèves ñoo ba ci yoon bi di ñëw yam ci moom mu daal di génnee waaye yàlla mi wutali élèves yi di leen dàq ji ak waa yàllaam élèves yi tiit jaxasoo daal di boole moom ci boppam ñu yóbbu ko gendarmerie ba ñu ko yóbbu place ko garde à vue ginnaaw gi ci lañ ko defeeree euh, lundi bi la koy attee ndax euh, xel mi dafa neexul wala daw wala moo ko tey di xibaar bu ñuy toppandi wéy leen daabale seen site d'information bii di Dakar Net daara ju leen rëcc ci réew mi